merci beaucoup camarade nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ginnaaw nuyoo yi ak sant initiative bi nga xam ne jeunesse Cogère bu département Pikine ñëpp ñoo ko jël mu nekk initiative boo xam ne soo son excellence le président Macky Sall daf ko rafetlu parce que yàggul dara communication ci lii la ko tënk mooy la ñi nekk benn ànd ak contexte politique bi ñu toll muy fexe nit ñi bindu fexe nit ñi dem jëli seeni i tey arrondissement de Thiaroye carte yu bëri génn na hélas moom ma koy annoncé annoncé ma bëgg balaa may wax ci wax ci ma bëgg nuyu responsable yi mag yi ma fekk yëpp c'est ça la conseil du département de Pikine C'est ça les membres fondateurs du département de Pikine di leen féliciter di leen xamal ni seen ànd bi yàlla ko yàlla dëgëral te bu leen bàyyi kenn ku ngeen mën a seeti dem leen ngeen seeti ko mu comprendre contexte politique bi ñu toll comprendre message bi président de la république wax donc maa ngi leen di remercier di remercier aussi président commission d' organisation bi le coordonnateur de Mbao Mamadou Ndiaye di remercier Mbaye Sène di remercier Gilles Ndaw ak sama xarit Balde Alassane Gaye maa ngi leen nuyu Maam Ndiaye maa ngi nuyu ñëpp man nag ñaari baat kese laay wax di beral nuyoo nag commune d'arrondissement bu Djiddah Thiaroye Kaw di leen defal mention spéciale ci mobilisation bi man ñaari kàddu laay wax mooy tey bu kenn raser les bu kenn di laqatu ne ci Macky Sall la far lépp lu ngeen diggee woon askanu Sénégal ci ñeenti at. ci juróomi at ci li ngeen def amul benn régime bu ko def ci cinquante cinq cinquante cinquante ans yi ñu jógee ci ñëw ci yeneen programme ay panel yi ñu def ay séminaires yu ñu def ay caravanes yu ñu vulgariser ay réalisation président Macky mais dinaa leen wax ñaar ngeen xam ni amul benn département booy dem gis nga un projet 32 milliards boo xam ne ci mbirum infrastructure sportive la loolu président Macky Sall mu ko def mooy complexe arène nationale tey jii boo demee tëli ñetti mbaar nga dem fu bëri tëli Pikine ñu ngi koy dem ay tëli karo Promoville la loolu yëpp dinañ ci ñëw ngeen gën ko xam lu jëm tëli poste yi régime yëpp fii lañ ko romb lu jëm tëli tribunal régime yëpp fii lañ ko romb tëli Diallo ba Kër Massar lépp président Macky Sall da koy defar ku dem gis ne ko projet bi commencé na donc waxu rajo yi ngeen di dégg ak ñun ñoo xam ne gëmuñu dara du rek ay yaanamaar yaanamaar bërki démb la tey ñoom dañu demoon élection référendum porté combat wu opposition bi ñu dóor leen parce que ñoom ñoo doon wax na nit ñi voté non askan mi wu leen voté wii loolu yëpp dinañ ci ñëw ci kanam mais li ma taxam tey en tant que jeune ku nekk na nga xam ni le moment venu di ngeen gis le parti taxaw ni mu war a taxawee partout au Sénégal wane 300 forages yi ñu déggee woon lan lañ ci def tey romb nañ 222 forages nit ñi xam ni. école bu nekk Pikine da nga doon recevoir ay sinistrés bu jamonoy nawet jotee ça fait deux ans amul benn sinistré bu nekk ci benn école bu wax moo jotagul dañoo toll ci liggéey mais ñu xam ni président joxe na mot d'ordre wax na ak la coordinatrice nationale madame Thérèse fay xam na le moment venu Thérèse dana jokkoog les responsables nan lañu war a taxawee mais ñu xam ne le 9 dimanche 9 une forte mobilisation de la jeunesse nationale danañ tontu le mouvement Y'en a marre tontu opposition bi nga xam ne c'est des gens incompétents donc ñu xam ni dañoo tolluwul ci wax fi ñu toll nii mooy ñu bañ ñu distraire li ñu liggéey ci inscription yi danañ def benn phase boo xam ne pour pour caravane jëli carte d'identité lay doon duñ ko def nag comme ni ko ñëpp di defee mais dañ ci waxtaan xool nan lañ koy defee pour nit ñi mën a jëli seen i carte d'identité tey carte d'identité bu leen mouvement Y'en a marre de conscientiser ni ñu jàkk ci citoyen boobu Sénégal jël bu mu ak Afrique de l'Ouest tey ñu ne la carte Sénégal o oh, Sénégal moo ko njëkk am déggoo Y'en a marre wax ci déggoo keneen wax ci parce que réew mi ñoru leen c'est des politiciens yoo xam ne élection confirmé na dans quatre mois la loolu moo tax ñuy jóg man damay gàttal di wax rek ni na ñëpp taxaw xam ni du yàgg dara responsable danañu woote mu am lu ñu taxawee ñu xam ne fii ba législative tey jii dañu war a siggi fii ma jàkkaar lool Macky Sall moo ko defar ne maire la